mbokki julli ci ginnaaw bi ñu bokkee musu ci seytaane ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa di julli di sëlmal ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëwaat ci seen émission asala spéciale boo xam ne dañ ko fas yéene ànd ak sunu ay mbokk di waa daayira ak daara xuyóoru muharram mu ngeen ko déggee fii ci Gueule Tapée la nekk ci immeuble Diez ñu fas yéene ànd ak waxtaan wi sunu mbokk sunu doomu ndey sunu mbokkum taalibe di lépp di Serigne Mbacké Diouf ak sunu wëllëre sunu xarit sunu lépp di Pape Alassane Seck Serigne Mbacké maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay delloo nuyu bu baax Serigne sëñ Mbàcc sëñ di la siyaar bu baax di sant bu baax ci dalal gi ngeen ñu dalal fii ci fii ci daara ji ak ñëw gi ngeen fi ñëw. ci ñu waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci diine lislaam jëm ci liggéeyu daara ji di sant bu baax ci dalal gi ngeen ñu dalal tey ñaan suñu borom mu barkeel liggéey bi te barkeel télé bi bu baax a baax. Pape Alsane ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaleykum salaam sëñ Bàcc Diouf ñu ngi delloo nuyoo bu baax di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi di la nuyu bu baax te di la ziar di ñaan liggéey bi yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin lan moo waral daara ak dayra xuyóoru muharram ah, li waral daara ak dayra xuyóoru muharram weesuwul eh, dara lu dul maanaam bëgg sax ci ndigalu sunu borom rek ndax sunu borom bindul nit ak jinne lu dul ñu jaamu ko sunu borom balaa nga koo jaamu danga koo xam loolu moo tax ci ay année 1999 suñuy magum taalibe yoo xam ne dañoo nekkoon ci gox bi mhm. jékki-jékki rek seen xol yëpp ak seen jëmm yëpp walbatiku dellu ci seen borom. ci Dakar gi nga xam ni ñëpp xam nañ ni mu rëbee ak ni mu mënee këf nit ci kër gii ñu toog fi lañ sancee daara ji suñuy magum muy kër Alaaji Thione suñu magum taalibe tàmbali liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko tàmbalee ci doon daje rek comme ni nga ko waxee daayira di di sikkat di jàng xasida di waxtaanee Sëñ ndax fexe suñu pas-pas ak suñu diine gën a dëgër hmm. xam ne noonee lañ ko tàmbali woon ba daara ji ni muy doxee di dox ba ba àgg fi kon li waral daara ji hmm. weesuwul dara lu dul fexe hmm. sax ci ndigalu suñu boroom yi sax ci jaamu yàlla sax ci liggéeyal sëriñ Tuubaa te loolu balaa nga koo def te mu ànd ak jëriñ dafay fekk nga xam ko bu baax kon fii bërëbu tarbiya la bërëbu bu yar la bërëbu yéege la bërëb bu ñuy tëggee aw nit la itam moo tax ñun ñii ñëpp toog juddoo ci daara ji màgg fi ba tey ñu mën a waxee wax toog fii di waxtaan ak yéen xam ne lépp lu ñu xam fi lañ ko xamee mhm. kon loolu mooy liggéey liggéey daara ji li ko tax a jóg daal mooy tëgg aw nit ba mu mën a doon jullit gu wér mhm. mën a doon taalibe bu wér doon muumin doon muslim doon muxsin bu mhm. wér boo xam ne dafay mën a mën a mën a jaamu boroomam jëriñ boppam jëriñ aw askanam ba noppi mën a dund jàmm ci réewam nga xam ne al ibaadu shahairiya al ibaadu taamuliya nga xam ne lépp da koy boole xam ne ñaar yooyu ku ci nekk rek société su ci ñëpp dundee rek ñëpp dañuy nekk si jàmm comme daal defar nit moo tax a jóg jóg jóg jóg ab daara te loolu mooy liggéey daara ji boobee ba tey tur bi fan la jógee waaw tur bi mi ngi jógee ndax daara ji ba ñu soog a tàmbali ni ko ni mu la ko waxee rek dañ daan toog daje guddi ajjuma bu nekk di jàng alxuraan di jàng xasida boobe sax daanaka xasida yi daan jàng dañ ko daan euh, dañ daan jël français yi di ko liir onoo mhm. ne ñu am mbokk taalib yi fi jaar ñuy fexe fexe fer ij mhm. fexe dugg nag ci xasida Serigne Touba yi nga xam ni mhm. Serigne Touba dafa xaajal xuloo ba jumlatal anbiya mahal malaikati inda rabbiya nga xam ne ne sama xasida yi dafa yëngab xol maanaam mboolem malayka ak anbiya bi nga xam ni muy yëngalee seen xol noonee la lay defari sa puur nag mm-hmm. ñu nekk ci xasida yi nga xam ni euh, dafay dafa lay tarbiya di la defar mm-hmm. nekk ci di ci góorgóorlu ba am nag yëgu nag dem nag siyaare Serigne Saliou mm-hmm. nga xam ne bañ koy siyaar yéen gi ñu amoon rek mooy yeesal suñu saalibe yeesal suñu jaayante ci Serigne Touba waaye itam maanaam fexe daara ji doon daara joo xam ne sëriñ bi la ko yëg ñaanal ñu ci nangu ñu liggéey bi nga xam ne ba ñuy dem jamono jooju ñu ngi doon ci bëggoon xasida bu ñuy wax xasida midaadi midaadi waaw midaadi wa aqlaam yi mhm. man nga xam sëñ Tuubaa mi ngi ko tëggee aaya man yuti rasool faxat ataallah mhm. nga xam ni di ko jàng ba ñuy dem sax ca ca ca oto ba mhm. daanaka dañ doon nekk ci di di jàng midaadi yu ay lim nga xam ne ku ci ne da def lim def naa vingt-huit la bañ demee sëriñ bi jox ko suñu àddiya wax ko lu ñu tax a jóg mm-hmm. ñu tax a jóg mooy taxawal daara joo xam ni dañ fee mën a defar aw nit mm-hmm. sëñ bi itam ba mu ko waxee mu ñu ba noppi dalal ñu bernde ñu wooñu nag ngir jox ñu aw tur ba mu ñuy jox tuur itam am na kéemaan gu ci am mm-hmm. ndaxte dafa jël ñoom ñëpp xam nañ dafa laaj bindukaay ñu jox ko mu tàmbalee bind tuur wi waaye miim la tàmbalee bind deel big bi mel ni dafa taxaw nga xam ni boobu mel na ni miraad la doon bind mhm. bu mu waat beneen bindukaay ba nga joxee beneen bindukaay ci la bind daara xuyóoru muharram mhm. tur woowu nag bëgg sëñ bi waxee tur woo woo xam ni ba tey sax mhm. ñun dégguñ daara bu am tur moom mën na ne xaas dañ ci sëriñ sëriñ bi defal nga xam ne ñun dañu ko sëriñ bi tuddee ci saasi xamuñu tur wala muy firi xamuñu sëriñ bi tam fu mu ko jëlee xamuñu luñ ci namm waaye ndigal nag lam ñu ci jox dafa ne liggéey bi ngeen di liggéey sëriñ tubaa ànd na ci su ngeen demee na ngeen sax ci jàng ak jàngale kon loolu mooy mission bu ñu sëriñ bi jox nga xam ne ci sëriñ Saliou ci gémmiñam moo ñu ne su ngeen fa demee mhm. na ngeen sax ci jàng ak jàngale mhm. tuddee ñu nag xuyóoru mu xarram mhm. xuyóoru mu xarram nag mooy ngëneelu weeru mu xarram ñun nag ba ñu demee ba gëstu ko ci lañ xam ne nag ab xasida la goo xam ne sëriñ Tuubaa moo ko bind tuddee ko xuyóoru mu xarram wa xuyóoru ma ba'dahu loolu nag soo ko déggee mooy ngëneelu weeru muharram ak ngëneelu weer ya topp ca gannaaw mooy ngëneelu weeru at yëpp suñu borom tënkal ko ko ci xasida mu tënk suñu borom defal ko ko ci xasida googu mm-hmm. mu tàmbalee xabiiru yaa alimu yaa basiru faalu yaa muxtaaru yaa nasiru mm-hmm. nga xam ne magum taalibe ñu ngi koy ñaanal suñu borom dolli ko leer muy Serigne Kondi ja Kondi moom moo doon xool diwaan yi ba gis ko mm-hmm. wax ñu ñun de daa mel ni Serigne bi tur wi la ñu tuddee jox ñu ndigal itam ñu màggal yow ma ashura ndax ko wax muharram wax yow ma asura nga xam ne mm. ñuy màggal bis boobu kon daal daara ji foofee la jógee ci lu rek mm-hmm. xam ne noonee dala la demee Serigne Saliou Mbacké ñu jox tur mu doon xaas woo xam ne mën nañu wax ne ñun rek ñoo ko am sax da ngay dem ba Touba wax tur bi sax ñu bari diñ dañ leen naan tur moom fu mu jóge mm-hmm. fekk sëriñ bi la jóge waaye ndigal lam ca teg daal mooy su ngeen day leen fa jàng di fa jàngale te boobee ba tey ci loolu rek lañ nekk bii leen sëriñ bi joxee tur wi li ma doon seetluwaat mooy dama gis ne seen daayira bi dafa am taxawaay boo xam ne dañ def yitte ci jàngale. Mhm. loolu ndigalu sëriñ bi la wala seen pas-pas a ci yegg. waaw ndigalu sëriñ bi la. Mhm. ndax ndax ndigalu sëriñ Tuubaa la njëkk a nekk. Mhm. ndax sunu borom moom daanaka ni ma xa waxee ci tàng bi rek mënee su koo jaamu. te xamoo ko. te moom nit lu muy def rek. Mhm. xam da ciy jiitu. Mhm. waaye xam rek doyul. Mhm. xam nag su ñëwee jëfe dafa war ñëw. jëfe rek doyul jëfe itam su ñëwee sellal da cee war a topp. xam ne waxam borom xam-xam bu ñuy wax suñu bay jaxa dafa wax ne képp ku xam te xamluwul bul wax ni lenn na ko xamal lu dul xalam ci ay dogal. bu ubbi ko bëti xolam. nga xam ne ndigal lañ ci am ndigal Serigne Touba ndax Serigne Touba moo digal ndaw ñi. dafa wax ne yaa ayyuha shubbaan in xiftum xajal. aqaddimoo taalluman ala amal mhm. dafa ne yéen yéen ndaw ñi su fekkee bañ ngeen gàcce mhm. na ngeen jiital xam balaa ngeen di jëf mhm. waxaat ñi itam yaa ya yaa ayos ya ya ya ya ayuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda wa bil ulumi staxilu fastaxilu bil xifzi wa tilaawa wajtanibu majalisa shaqaawa walaazimo man laa yazaalu aabida li rabbihi ilal huda wa qaida loolu nag mën nañu wax ne mooy liggéey daara ji ndax ku wax ku wax jub wax yar ku wax ilmu wax xam-xam ñaar yi nag dañuy ànd sëñ Tuubaa ne wax ñi bu leen yittewoo yéen ndaw ñi lu dul jub ak sàkku xam-xam bu noppi nag di nekk ci environnement boo xam ne xam-xam bi ngeen jàng dafay mën a des ci yéen ba mën leen a jariñ na xam-xam ñëpp xam nañ ne ñëpp xam nañ ni leer la ndax soo demee sax sëñ bi muy wax li nga xam li xam ne mooy tax xam-xam du barkeel sëñ Tuubaa mi wax ni nee na suñu du jox xam-xam tooñkat ko jox kat kon leer la goo xam ne suñu borom da koy def ci nit mu war koo jëriñ mhm. loolu nag tax na nit ki su bëggee xam-xam muy jàng mën koo jëriñ faw mu nekk ci environnement boo xam ni maanaam li ñu def ci moom day mën a des ci moom mhm. loolu mooy wala zima man laa yasaalu abida mhm. kon nag bul dañ mukk di ànd koo xam ni dafa sax ci yoonu jub ngir mu lay ñoddi di la jëmee ci sa borom kon daa ci ñaar yooyu la nekk nga xam ndigal sëriñ Tuubaa boobu nga xam ñu war a jàngal ndaw ñi ba ñu xam waaye jàng rek doyul ñu yar leen nag ba ñu ne nër nga xam ne dinañ mën a jariñ seen bopp tarbiya leen ñu mën a jariñ seen réew mën a jàngal leen liggéey itam ba noppi yari leen yarin woo xam ni maanaam lépp rek seen lépp rek dañuy jiital ëllëg ci tey mhm. waaw ndax soo jiitalee ëllëg ci tey rek lu bari ci àdduna du la këf mhm. di nga am sakina am dalu xel ci lépp lépp lu ñëw rek di nga xam naka nga ciy duggee ndax di nga xam ni àllaaxira moo gën te moo gën a des te mhm. jullit moom jëfam yëpp foofu la ko war a jënd kon loolu mooy liggéey daar yi mooy daal liggéey yar daal li mhm. nga xam ne moo fi indi woon Serigne Touba nga xam ne sëriñ bi li ko fi indi mooy yeesal sunna seen sa salaam lil Moustapha nawaytumaa jaddidu sunnatuhul xarra wa inni ahmadu mhm. ba ko tubaab yi waxee da ngay jihaat daf leen ne damay jihaat ci fit wu réy wa inni ujahidu waaye nag bil ulumi wa bit damay jihaat de dëgg la waaye man sama jihaat mooy xam-xam ak ragal yàlla nga xam ne daara ji ci loolee rek lañ nekk fexe suñu jihaat ñun fexe nit ñi xam seen borom fexe nit ñi xam Serigne Touba lu mu woote ba ñu mën a topp ay ndigalam nax topp ndigalu Serigne bi mooy topp ndigalu yonent sallallahu taala alayhi wa sallam mooy topp ndigalu suñu borom kon loolu daal mooy liggéey daara ji mhm. fexe daal yar yar ndaw ñi surtout nax dañoo nekk ci environnement boo xam ni yow fi nga dëkk xam nga nu mu mel mhm. mucc fi dafa jafe. Mm-hmm. ndax gël tàpp gii ñu nekk rek mucc fi jafe na lool. Mm-hmm. moo tax nag dañuy fexe ñun. Mm-hmm. Euh, dongo yi nekk ci daara ji saa su nekk ñu ñu bañ di jaxasoo di nekkante seen biir. di yokkante pas-pas. ndax sëriñ yu mag bi sax soo demee ci taarix di xam ni li ko tax a jóge Touba dem dem dem dem dem dem Bari mhm. loolu bokk na ci ndax donga yi daa mel ni tarbiya dafa àndut ak jaxasoo mhm. te Dakar dëkk jaxasoo la mhm. kon nag ñun li ñuy dimbali mooy fase fase ne di nekk suñu biir di yokkante suñu pas-pas loolu moo waral daara ji def at yi yëpp ba produire tam ay nit ñoo xam ni ku leen gis xam ne ay jullit xaqan lañ xam ne ay taalibe dëgg lañ 24 ans bi ma déggee 99 ak léegi. Mhm. mu mel ni vingt 24 ans. 24 mhm. ans yéen a ngi ci liggéey boobu. Mhm. est-ce que am na njeexit ci ñi fi ñëw di def tarbiya. ak ñi fi def di jàng est-ce que li ngeen leen li sëriñ bi ñu sàkku woon. di sëriñ Saliou Mbacké. maanaam jàng ak jàngale def tarbiya. ba mu nekk julli dëgg-dëgg mu ngi am njeexit. ci ñi nga xam ne ñu ngi fiy ñëw. loolu moom dañ ci sant suñu borom bu baax. ndax ni ma ko waxee loolu rek mooy liggéey bi ndax damay wax gars ne leen. Euh, liggéey bi su fekkee dañ ciy def suñu alal ba mu jeex mm-hmm. def si suñu jot ba mu jeex mm-hmm. def si suñu temps yëpp ba mu jeex mm-hmm. te benn nit képp defa ci jar na ko loolu mooy yéene gi waaye nag ndokk ba nga xamee ni nag ay ay téeméeri nit defaru nañ ci nga xam ne du ñu jeex te li am solo yàqul maanaam doxu àdduna kenn ndax ñu ñi ñëpp ci école française lañ nekkoon terewul boole nañ ko liggéey daara ci terewul itam fañ ca waroon àgg ak ak ca bëggoon mën nañ ci aw nañ ci lu ci kawe suñu njort lu nekk génn na ci daara ji ay médecin génn nañ ci ay avocat génn nañ ci ay professeur génn nañ ci ay ay ay ay ay chef d'entreprise génn nañ ci ba tey jii maanaam nekk di defar ay nit nga xam ne da ngay boole temporel ak spirituel waptari fi ma daara laaxirat waaye wala wala tan si bëkk mi na dunia xam ne ñaari mooy liggéeyu daara ji nga xam ni ba tey ji daal bis bu nekk daara ji mi ngi defar aw nit ndax soo xoolee suñu alsaan mi toog ñun mhm. ñi itam suñu jëmm yi mosuñoo dem jàngi fenn mhm. waaw mosuñoo yalwaani fenn dara lépp ci daara ji lañ suñu borom dëgal mhm. ñu ñu yaree ñu fi ñu xamee fi tam li ñu war a xam suñu diine yëpp donte ba tey dañuy jàng ndax daara la ñu wax daara ko ci nekk da ngay jàng rek te jàng moom kenn du ko matal waaye ba tey daal ñu ngi góorgóorlu di fexe daal ay jullit xaqan di fi génn ay taalib Serigne Touba yu wér itam di fi di fi génn te loolu mënta am ci lu dul ñu yar leen ba noppi jàngal leen ba noppi tarbiya leen nag nga xam loolu daal moom mooy liggéey bi nga xam ni moom daal mën nañ ci am daal am nañ ci tawféex koo xam ni daal ñu ngi ñaan suñu borom yokkal ñu ko ndax liggéey moom soo ci nekkee dem ba sa njaboot tey doom fekk la ci ba noppi ëpp la ci Pastef gën laa baax soo leen soo xoolee xam ne ñii ñoo la gën a baax ba nga amee seen at meloo woon ni ñoom mhm. dañ ciy sant yàlla bu baax a baax léegi bëgg a nekk murid sadiq dégg daara ji mhm. est-ce que dinañ ko mën a former. defal ko tarbiya boo xam ne bu génne ku ko xool xam ne kii murid saadix la comme ni ko sëriñ bi diglee. waaw loolu moom tawféex la ndax ni ma wax rek xaas la. ndax euh, ndax ndax yar yar yar dafa jafe. ndax tey soo yoroon téeméeri xar di leen yar. benn yat ngay yore. Uhuh. waaye soo yoree téeméeri nit da nga yore téeméeri yat. Uhuh. soo yar téeméeri da nga yore téeméeri yat. Mm-hmm. loole nag yàlla yàlla dogal na am na fi bu baax a baax a baax a baax a mm-hmm. li ma waxee exemple bi moom duñ ko wuti fenn ñun ñuy toog di wax ak yéen rek mm-hmm. ah, loolu doy na ci ndax da jàngiwuñ fen ah, lépp lu ñu fii la ñu yare fii lañ nekk ak jëwrin maxtaar ñu koy nuyu bu baax xam ne bañ nekkee xale ba tey mu ñuy tarbiya ndax daara ji ku ci dugg li ci ëpp solo dañuy fexee xam yow maanaam sa niveau ndax ku dugg fii rek bëgg nga lu baax ah, ñu ñëwul tam lu baax rek lañ bëgg ñëpp lu baax rek lañ bëgg ndax sëñ Bay Jax dafa wax sëñ Tuubaa ne ko bu fekkee ni yow Bamba may yii nga yor ñi gën rek a ciy jot na ngay def ñu bon bu fekkee ñu baaxee amos def ci yow ñu baaxul li ñuy am ci yow muy fi gën te yaa yor cërub gaa yu baax ñi bon joxol joxol mag ñi jox ñëpp jox ñii fi man mhm. du la fa tax ñu ñëw kat ci yow lu dul yërmande sa yërmande leen séenu mhm. kon fi gaa yi yaatu dënn ñoo fi nekk xam ni sell sunu maanaam sunu borom dafa def ni nit dafa di ku matadik waaw nit nag ngir nga dimbali ko bu mu mën a xam borom dafay laaj yërmande ak yaatu dënd ba tax na nit fu mu toll ci xam-xam su ñëwee fii mën a dolli ko nga xam ne dañuy tàmbalee ci ndaw ñi tàmbalee ci mag ñi par catégorie ku ci nekk sa xam-xam fu mu toll am na ay jotaay yoo xam jotaay majaalis kase la nga xam dañuy teg téere xam-xam yi Serigne tuwaa bind yëpp te jëmale ko ci ndaw ñi tasawudu sixaar jawharu nafis mhm. tasawudu shubaan mhm. naxjul xadaayil xaaj mhm. masaalikul jinaan mu layi ni sudóor mawaahibul xudóos nga xam ne yooyu yëpp ay téere la yoo xam ne bu ci ne dafay jàngale benn pàcc ci diine yooyu yëpp dañ koy tëral fii di ko jàngale te yo jàngal gi ñu koy jàngale mooy dañuy mu am jeexit ci dongo bi ñëw fii alxuraan itam noonee lañ ko fiy jàngalee waaye noonee tam la ñuy def tarbiya bu gaaw bi ndax sëñ Tuubaa dafa wax ne ilallahi aabidan ila xalwatin wallahu abqa kama ahna nee na sama xasida dafay eggale eh, jaamakatu yàlla fa sunu borom ci lu dul muy dugg xalwa mooy day doxal saw yoon nga xam ni eh, maanaam xasida ti faaxat siyooxu ta tarbiya wa kullu xayrin wa siyooxu tarxiya nga xam ni nee na sama xasida di ko jàng maanaam kawe na cheikhu tarbiya ak cheikhu tarbiya taqiya ak wépp yiw nga xam ne nag leneen li nga xam ne nag ñun ko te lootu xasida yi moo koy moo koy mottali waaye suñuy li nga xam ni moom moom la daara baaxoo mooy jàngale. Mhm. maanaam ba noppi di topp nit ki nag. Mhm. waaw di ko topp di ko di ko fàttali. Mhm. ndax nit moom yàlla da ko di bindee fàtte. di fexe tam muy ànd ak ñu baax. ànd gi muy ànd ak ñu baax. moom mooy tax li nga koy jàngal des si moom mhm. di fexe tam li ngay jàng mu koy jëfee di fexe tam mu koy sellal di ko def te yàlla rek tax mhm. def gi mu koy def te yàlla rek tax tam mu ciy yaakaar maanaam ndimbalu suñu borom képp rek mhm. xam ne suñu borom moom rek mooy nangu nangu aw jëf loolu daal mooy liggéey daara ji nga xam ne daal ku fi ñëw dinañ fexe ban niveau nga toll ñu fexe koo yokk ci fànn yëpp na fànn xeetu xam-xam yëpp ba fi ñu toll jël nañ jàngalekat boo xam ne ci daara ji la nekk ay dañuy mmh. ñëw lépp loo xam ne war nañ koo xam ñu jàngal leen ci diine ñiy feer iji feer iji ñiy jàng téere xam-xam jàng al xam-xam ñiy jàng alxuraan jàng ñi am ay jotaay itam jotaay laaj la ay jotaay waxtaan nga xam ne ku nekk da ngay ñëw am ay masala ci diine laaj ko soo ko laajee itam ñu waxtaanee ko ah, indi ci ay dalil yu leer nga xam ne day doon dimbalante suñu biir nga xam ne loolu daal mooy mooy mooy jotaay daara la daal ñëpp a ciy defa ko mmh. léegi ci aspect yaa ngi dugg ci lu am solo maanaam ki nga xam ne jàngul bu ñëwee fii dina jàng daara ji horaire yi naka lay demee ak tamit tarbiya boobu ngeen xam ne da ngeen jël nit di ko fay pour muy xamante nit ñi loolu ci seen mission la bokk wala yéen yéen a jël charge supplémentaire boobu rek boole ko ci seen taxawaay suñu mission la bokk ndax sëriñ ñu moom moo ñu digal ne soo demee seen liggéey day leen jàng di jàngale am na baat sax bu mu ci tek mën naa ko wax na dafa ne lépp lu ngeen def sëñ Tuubaa ànd na loolu Serigne Sall moo ko wax ci làmminam mhm. te ñi ko teewoon ñëpp ñu ngi dund mhm. waaw ne leen lépp lu ngeen lu ngeen nësër sëñ Tuubaa ànd na ci mhm. te loolu moom daanaka suñu lépp rek dafa dafa dëppoog wax jooju daal lépp lu ñu dugg rek maanaam ndimbal suñu suñ suñu borom daf ñu ciy fekk ba tax na loolee dañ koy tegu ndax ndigal la ndigal nag mooy li nga xam ni moom moo moom mooy moom mooy tax jëf nangu jëf du nanguti lu dul maanaam ndigal dafa dafa tegu tegu ci ndigal moo tax jàngkale jàngalekat yooyu ñuy jël mhm. ñu nekk ci daara ji daan jàngale dañ koy tegoo ndax dañoo am ndigalu def ko mhm. ndax bu njëkk ñu ñoo ko daa defal suñu bopp mhm. man mii ci daara ji laa jàngee dem ba di fi jàngale ku mel ni suñ seexu naa ci daara ji la jàngee dem ba di fi jàngale dem ba doon kàng boo xam ne mën na fee jàngale ak ñu dul jeex waaye yàlla dogal itam su fekkee danga am ñaari activité mooy activité professionnelle mhm. am vie de famille am ak activité daara ji dina dem ba mën naa jàngale boobu jot bi doo ko am mhm. bañ demee ba gis loolu ci lañ dem ut nag personne externe boo xam loolu mooy liggéeyam mhm. ñu utal ko ay bis yoo xam nit ñi dañuy ñëw di jàng suñu jàngee itam ñun li ñu warloog moom ñu nga xam ne dañ ko koy def ndax moo xam jàng dañuy fay wala duñu fay dara duñu fay dara daara ji moom kenn du fay dara à de ban la Ah, nit moom su mënee wax rek mën naa dugg ci daara ndax am nañ kuréel goo xam ne daanaka ñun suñu tuutànk yi am ay ñaari <clears throat> maanaam dañuy dugg ndax nit da nga koy nàmpatal ci lu baax mm-hmm. tubaab dafa wax ne le milieu détermine l'individu mm-hmm. ne nit ku nekk soo bëggee xam ne mu mel rek demal fa mu dëkk mm-hmm. demal ca ñu mu àndal loolu nag lu am solo la moo tax ñun suñu tuutànk yi suñu amee ñaari attaque dañuy gis dañuy tàmbali jàng xasida di yuuxu même suñu xamul dara dañ leen bàyyi sax ñuy jàng rek nag lu ñuy gën a màgg bëgg gi di gën a yokk lu bëgg gi di gën a yokk ñuy gën a bëgg a xam mhm. ndax sëñ bi dafa wax ne sëñ Modou Faye dafa wax ne cofeel gu wér nee mi ngi ci xam waaye loo gën a xam nga gën a gëm loo gën a gëm nga gën a am cofeel ak ngëm ak niyati mhm. <laughs> nga xam ne cofeel xam daal la tàmbalee xam mooy yokk cofeel mhm. ñoom nag suñuy xam di seen cofeel di yokk ba suñu am nag fu ñu xam ne nag mën nañoo xàmmee tàmbalee na nag feral ijji suñu demee ba fer ijji tàmbali nag ci jàng alxuraan di ko boolee nag njàngum xasida mi nga xam ne nag ñun moom daanaka moom mooy moom mooy suñu yéeguwaay xam ne lépp lu ñuy def njàngum xasida moo ci njëkk moo ci moom moo moo ci mucc mhm. mooy moom mooy li nga xam ni mhm. moo mooy moom mooy defar bu gaaw bi li nga mënul xasida yi moo xëy moo tax léegi beneen bi ma doon laaj mooy ci wàllu dégg naa da ngeen am pàkk mhm. boo xam ne ba Bassirou moom Serigne Abdou Khadr Mbacké moo leen ko jox ca Touba léegi ma doon laaj pàkk boobu dégg naa da ngeen ko bëgg a def daara bëgg ko def internat. Mhm. te Touba léegi am fa dëkkuwaay jafe. Mhm. ñu jox leen pàkk ngeen bëgg ko def jànguwaay bëgg ko def daara. Mhm. lan moo waral loolu. waaw ndax nitu daara moom léppam da ko war a delloo ci daara rek waaw ndax ñun moom waruñu fe bëgg dara. lu dul fexe maanaam maanaam jàpp ci liggéey Serigne Touba bi ndax Serigne Touba dafa ne. man isil muridu laa yuridu abada xayra rida rahmaani xaysu xasada ñu ne ak ab murid nu muy mel mu ne ab murid mooy koo xam ne bëggul dara lu du am ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla moom bi ci gën a gaaw mooy fexe nit ki xam boroomam rek mooy jàng ak jàngale rawati nag alxuraan rawatina nag su sunna seen sallallahu taala alayhi wa sallam moo tax ñun suñu liggéey dafa jëm ci loolu ñu amoon yéene nag am kër goo xamee dafay nekk Touba ndax murit bu nekk Touba mooy këram mm-hmm. Touba mooy suñu kër gu njëkk mooy suñu kër kër maanaam gu mujj mm-hmm. moo tax nag ba ñu amee loolu ci ndimbalu sëñ Bassirou Abdou Khadre ndax daara ji li ñu bëggoon ndax dañoo tolloon ci dajale mm-hmm. ndax ni ku nekk xam na Touba maanaam am fa pàkk jamono yi ni mu jafee ñu ne nag ñu jógee màggal ñu ne fi ñu toll faw ñu dajale am am maanaam dajale koom boo xam budget bu mat dem fàggoo ko terrain ba ñu waxee loolu ñu tàmbali tàmbali di jaayante ne dañuy jaayante ba am nangam dem jënd ko terrain commencé di wax waxaale ay nit ba sori ak ñoom waaye tawfeex sëñ Tuubaa ñëw te lépp ci xasida yi la jaar ndax sëñ Basiru moom sëñ Abdou Khadre da dafa day wëllëre daara ci doon suñu kilifa doon suñu sëriñ saa yu ñëwee Dakaaru daf ñuy woolu di di di nekk ak ñun ah, di ñu béggal ci sëriñ Tuubaa ñun itam ñu koy béggal ci sëriñ te ñun li ñu am li gën a rëy mooy xasida sëñ Tuubaa ñu koy jàngal xasida ba wax ko suñu mébét boobu noonu sëñ bi nee na ne nag dañ ko bëgg a def kër sëriñ tuwaa goo xam ne daara lay nekk daara goo xam ni suñu tout tànk yi ni ñu nekkee Dakar nga xam ne dañuy bëgg di leen dugal ci daara waaye ñëpp xam nañ jamono nu mu jaxasoo mhm. te xaqida yi am léegi dafa bari mhm. pas-pas yi am mhm. léegi dafa bari te pas-pas yu bari dafa wuuteeg pas-pas yi nga xam ne suñu mag ñi moom lañu ñu jàngal te pas-pas la yoo xam ne li ci ëpp day tàqale nit ak rek waaw doonul pas-pas am njëriñ te li ci ëpp soo fa yóbboo sa doom su ñëwee lañ ci am du la neex ñu ne nag ñun li ñu war a def mooy ñekk suñu bopp li ñu ñàggee suñu bopp mooy fexe suñu njaboot nekk ci sax ci njàngale njàngale njàngale mi nga xam ne moom lañ sëñ Tuubaa indil mhm. loolu tax ñu bëggoon daara ji wax ko sëriñ bi sëriñ bañ koo waxee ci saa si daf ñu ne ah loolu de moom moom dafay jàppandi léegi mhm. laaj ñu ne benn mooy doy wala ñaar mhm. ah ñu ne ko ñu ne kon sëñ Tuubaa mu ne kon kon kër sëñ Tuubaa ci làmmiñ boobu mu ne ñaar mooy doy mu jox ñu fa terrain boo xam ne mi ngi toll ci mille mille deux cent mètres carrés mhm. nekk jannatul maxwa am sëñ bi joxuñu ko ci biir dëkk bi ci biir dëkk bi lañ ko jox mhm. mën nañoo wax ni fi mu ñu jox itam parc boppam la mhm. suñ ko doon valoriser ëpp na vingt cinq millions wala vingt millions di dem fa mu nekk ndax ni mu toll ci marché la nekk nekk foo xam ni fooy dugg ci dëkk bi neex naa neex naa dem neex naa accessible na accessible na ci fànn yëpp ñun nag ñu am yéene nag àggali nag suñu yéene googu lii daal duñ ko def dara lu dul daara daara goo xam ni dañuy fexe suñu li ñu sëriñ Saaliw santoon ak li ñu sëñ Tuubaa digal ñu yàggale ci suñu yéene nga mhm. xam ne liggéey boobu nag fi ñu toll mhm. moom rek mooy tey daara mhm. guddi ak bëccëg ci la ñuy dox ci la ñuy wax nga xam ni tàmbali nañ ko dina te te ci te ci woo ñëpp rek mhm. xam ne daara la yaatu la xam naa mhm. après image dina jàll daara da ngeen ko bëgg a def daara moderne mhm. nga xam ne tey xale bu ñu jëlee vacances mun nañ dem ca daara ja ca Touba def fa ay weer ñu jàngal leen tarbiye ba seen jikko yi nga xam ne moom la sëriñ bu bëgg ci jullit ak burit ñu amee ko loolu daara ji dina ci liggéey waaw loolu mooy liggéey daara ji loolu moom moom mooy daanaka wax nga lépp loolu rek moom mooy yéene gi ah, fexe daal fexe liggéey bi ñu nekkee fii ñu gën koo yaatal yaatal gi nag ci jàngale jàngale mu sax mhm. jàngale mu wér mu dëppoo ak njàngale mi nga xam ni moom la moom la ñu sëñ Tuubaa jàngal mhm. euh, ñu yar ci suñu njaboot mhm. yar leen ci bu baax a baax ba ñu mën a mucc ci lépp loo xam ni mhm. pexeb seytaane la ci lépp loo xam ni ma maanaam mën a tàqale nit ki ak boroomam xam ne loolu daal moom mooy yittey daara ji fiñ ñu toll te ni liggéey la boo xam ne ñi ci woo ñëpp di wax ni tàmbali nañ ko te ni mu la ko waxee rek lépp lu na am suñu xel suñu xalaat suñu yéene suñu jëmm du lu mukk lu du liggéey boobu dafa noppi xam ne suñu ñu incha allah kon ci noonu Serigne Alsaan ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay comme ni ko Serigne Mbacke waxee dafa am bëccëg bu ngeen jàpp pour laajti wala laaj bi tàmbali na. waaw jërëjëf sëñ Bàcc ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu tër mhm. ak sëñ Amdi Modou Mbenn Fall di ñaanal Serigne Bassirou mu sëñ Abdou mu yàgg fi lool. Mhm. di ñaanal Serigne Mouhamadou am na Abdoulaye fay mhm. mu yàgg fi loolu te wér mhm. waaw noonu nga ko laajee mhm. euh, bis boobu moom bisu collecte de fonds la boo xamante ni ñi ngi ko jàpp le 6 janvier ñi ngi koy defee nag fii ci daara ji bis boobu nag comme ni nga ko waxee laaj bi tàmbali na ndax am na ñoo xamante ni fii may wax ak yow ñi ngi indi seen contribution di indi seen addiya ngir ñu defal leen ko ci bis boobu ngir ñu defal leen ko ci daara ji nga xamante ni dañ koy tabax ca Touba waaw nga xam ni le 6 lañ ko jàpp incha allahu 15 heures la mise en place bi incha allahu taala li aju ci cérémonie officielle bi 17 heures lay tàmbali waaw bis boobu nag ñi ngi ciy woo ñëpp képp ku bëgg lu baax ñi ngi la ci woo képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah ñu ngi la ciy woo di ci woo waa daara wakaana xaqan alayna nasrul muminin di ci woo daara makaarimul axlaax di ci woo daara nuur daari ni ESP di ci woo daara Touba Gueule di ci woo daara xidmatul xadim de la Fosse di ci woo daara Abdullahi wa xaadimu rasul ci njiitalu Serigne Maam Thierno Ñang di ci woo daara Matlabul Fawzayni mooy waa Ansaar di ci woo daara Mafatihul Bichri Medina di ci woo daara maqaalimul maqaalimul axlaax waaw maxaalixul niiraan bu Medina di ci woo daara isbu tarxiya ci njiitalu Serigne Youssou Diop Youssou Diop mhm. waaw moom sëñ Bass Abdou Khadre bi mu jox pàkk bii yàlla dafa dogal moom teewee na ko mhm. bis boobu mi ngi ko fekk ci kër Serigne bas Abdou Khadre gi nga xamante ne moo nekk fii ci VDN bi mhm. nga xam ne bi ñu ko sëriñ bi di jox moom fa la ko fekk mhm. bis boobu it la yàlla dogal ñu fasanteeg moom kóllëre moo mhm. am ci yéene lool waaw ñu ci woo tamit daara miftaaxu nasri bu Blaise Diagne di ci woo daara sahaadatu daari ni Médina di ci woo daara nuuru daari ni bu Gueule Tapée di ci woo waa kër sëriñ Modou Faye di leen ci woo bu baax di woo waa kër sëriñ Modou Guèye ci njiitalu sëriñ Masata Fall di ci woo waa kër Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mhm. ci njiitalu baay Mahmoud Diop mhm. ak baay ablaay Sow mhm. di ci woo daara Miftahul Muna wa Suul di ci woo tamit daara euh, Miftahul Muna wa Suul di ci woo tamit waa Jeysun bi nga xamante ni ñoo nekk ca Masaalikul Jinaan di woo daara Xidmatul Xadim bu Mermoz di ci woo tamit daara zaadul musaafir bu aéroport mhm. waaw di ci woo tamit ki nga xamante nii moo nekkal mhm. sëriñ Touba fii ci ndakaaru mhm. di sëriñ Mbàkke yu fay ñi ngi ko ci woo bu baax a baax a baax baax a baax a baax waaw di ci woo tamit sëriñ Axma Mbàkke mi nga xamante nii moom membre la fii ci daara ci dëgg la waaw nga xam ne dafa am carte de membre moom Serigne Ahmadou Serigne Modou Kara Mbacké Serigne Modou Kara Mbacké nooré mhm. di ku ñu jàpp mhm. di koo xamante ni sëñ Tuubaa rek ko mhm. di koo xamante ni xasida yi rek ko ñor waaw kon ñi ngi ciy woo ñëpp di ci woo suñu mbokk taalibe seex yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi di ci woo murit tiijaan laayeen xaadir di ci woo daal képp kuy wax ashhadu la laa ilaaha illallah di ñaan suñu boroom yóbbu ñu ci ak jàmm bis boobu le 6 janvier la. fan ngeen koy defee fii ci daara ji lañ koy defee fii ci Gëltape immeuble Diez. am ngeen numéro yoo xam ne nit bu ñi nekk diaspora nekk bitim réew am ñoo ci mën a woo. waaw mhm. am na numéro yoo xamante nii mhm. mooy numéro mhm. yi nga xamante nii mooy numéro Orange Money ak Wave nga xam ne numéro boobu lu ci waay def lu ci waay envoyé dina egsi ci daara ji waaw numéro bi mooy 77 882. 99. 64. numéro bi nga xamante nii nag mooy euh, numéro banque Cofina bi nga xamante ni mooy compte bi. bamtul ni numéro orange money bi ak wave bi. numéro orange money bi. 77 mhm. la. 882. 99. 64. mooy numéro bi nga xamante nii lu ci waay def. Mhm. lu ci waay envoyé. Mm-hmm. incha allahu daara ji daanañ ci jot te danañ la ko defal ci liggéey bi mm-hmm. numéro bi nga xamante nii nag mm-hmm. mooy numéro euh, compte bi mooy compte Cofin banque Cofina mooy deux cent cinquante trois trois cent dix zéro soixante quinze cinq cent soixante onze mooy numéro bi nga xamante nii mooy numéro compte bi nga xamante nii lu ci waaye envoyé it mooy mbokk yi nga xamante ni dañoo nekk ci diaspora bi ñoom ñu lañ ci woo bu baax a baax a baax a baax di leen xamal ni daal numéro yi incha allahu taala lu ci waaye envoyé daanaka danañ ko def tamit ci écran bi bu ko defee ngeen ngeen gën koo mën a bàyyi xel ñu ñaan suñu borom yombal ñëpp xéewal ak jàmm duñ ci def waa diaspora bi it euh, ñan nga ciy woo ñu ne Espagne États-Unis waaw waa diaspora bi moom mhm. Euh, bari na mbokk taalibe yoo xamante nii fii ci daara ji lañ nekk mhm. ñoom it ñi ngi leen ciy woo mhm. ku mel ni sëñ Papis Fall mhm. di ci woo sëriñ Danse Diop di woo sëriñ Mabuso Mbaay di woo tamit soxna Mami Diouf waaw di tamit euh, soxna Aysa Diouf ak soxna Mati di woo sëriñ Ablaay Sere sëriñ Aline Sow. Mm-hmm. Aline Thiaw. Aline Thiaw. Mm-hmm. tamit mbokk yooyu nga xamante nii ñoom lañu lim. Mm-hmm. ñoom daanaka defe naa ni ñoom ñëpp bu soobee yàlla. seen xel ak seen xalaat mi ngi ci liggéey bi. am na kuñ may wax ne goro la ba pare wëllëre la ci daara ji di Bougane gay daani waaw ñu ciy woo tamit. Bougane Gueye Dany. di ko ci woo bu baax a baax a baax. waaw ah, moom goro la ci daara ji. ndax liggéey bi ñi koy taxawal. daanaka ay gorom lañ. mooy daara ji di xuyóoru muharam di waa kër alaaji coon Seck mhm. nga xam ne fii ci kër alaaji coon Seck mooy mhm. siège social bi mhm. waaw di ci woo tamit euh, ki nga xamante nii mooy maire Gueule Tapée Fass Colobane Abdel Aziz Paye xamante ni moom lu ci waay di def moom nga koy defal ñi ngi ko ci woo bu baax di ci woo tamit maire Gueule Tapée maire Médina di Bamba ñu ngi ko ciy woo. Mhm. di ci woo tamit ku mel ni Ousmane Ndoye. Mhm. waaw ñi ngi woo ñëpp. Mhm. di woo autorité yëpp. ak seen dëkkandoo seen dëkkandoo seen lépp aja Sali Doucouré. soxna Sali Doucouré nga xamante ni moom. nit ku baax la. di responsable APR fii ci Gueule Tapée. di woo tam borom këram. Serigne Joher. di ko woo moom ci bis bi. waaw di woo suñu am di jàmm yëpp. di woo tamit colonel Ousmane fay Ousmane Faye nga xamante ni nit ku baax la di mhm. taalibe sëñ Fallou mhm. di ko woo ci bis bi di ko ci séentu tamit mhm. di ci woo ñëpp mbooleem mbokk yépp di ci woo tamit euh, suñu suñu mbokku taalibe seex yi nga xamante ni ñoo fi nekk di ci jiital sëriñ Ahmadou Cissé Njëgën parce que waaw nga xamante ni kilifa la gu baax nekk ci koñ bi nekk ci gox bi di tarbiya nit ñi ak di leen jëmale ci siraatal mustaqim moom it ñi ngi ko ciy woo di ci woo njabootam waa Gueule Tapée moom defe naa kenn desu waaw defe naa bis boobu ñëpp a ngi koy waaj gox bii nga xamante ne nii mooy immeuble JS ñi fi nekk mooy daara yi fi nekk daara tiijaan yeeg murid yeeg xaadir yeeg ñëpp bis boobu ñi ngi koy waaj def nañ ay daje yoo xamante nii ñoom dañ ko jàppee seen bisu bopp nga xamante ni dañoo fas yéene sax ñoom dugg ci organisation bi ñoom ñoo ñëpp ku mel ni sëñ Abdou Dieng Abdou Dieng Lamine Sy mhm. Malick Sy euh, mhm. Malick mhm. nga xamante ni ñoom ñëpp kenn ku ci ne sa yéene mooy ñëw àndandoog daare ji bis bi nga xam ne ñoom jàpp nañ ni daal bis boobu comme ni ko sëñ Mbàkke waxee léegi bisub lislaam daara ji nga xamante nii moom la def ca Touba daare la joo xamante nii lislaam lañ koy defal buñ ko defee képp koo xamante nii dafa bëgg lu baax képp koo xamante ni lislaam dalaa itteel fas nañ yéene incha allahu taala boo bëggee ñëw jàng ñu ubbil la suñuy bunt fàttali ñu bis bi ak waxtu bi waaw ah, bis bi le 6 janvier la. Mhm. fii ci Gueule Tapée immeuble Diez. Mhm. fii nga xamante ni mooy siège mhm. daara Xuyóoru Muharram mise en place bi mi ngi tàmbali quinze heures. ci lañuy tàmbali. gars yi daje daayira yi ñëw. jàng xaside yi. fas nañ yéene tamit def ci ay waxtaan yoo xamante ni. dafa jëm. ci diine. bu ko defee. 17 heures. ci la. cérémonie officielle bi mhm. nga xamante ni collecte boobu mhm. ci lañ koy def mhm. mbooleem mbokk yëpp ñun daal bis boobu incha allahu taala lu ñu am danañ ko ci def lu ñu waay joxit danañ la ko ci defal kon daal loolu mooy woote bi di ñaan yàlla yóbbuñ ci ak jàmm ñaanal mun taxa mu yàgg fi loolu te ak mbooleem kilifa diine yëpp jërëjëf sëñ DK TV. Mhm. baax a baax ci opportunité bi ñu may ñu mën a yaatal liggéey daara ji. Mhm. yaatal tam projet yi nga xam ne nekk nañ ci te bi ci gën a màgg mooy bi sëñ Alsaan doon leeral. Mhm. Euh, ñu ngi leen di ñaanal sunu borom yëkkati télé bi bu baax a baax a baax ak sëñ Bàcc yow moom kenn amul sa fay. ñaan suñu borom gën la yëkkati. gën laa sàmm. dafa la xéewal. xam ni waa Gueule Tapée yëpp bëgg nañ si yow. daal ñu ngi sant bu baax te bis boobu daal ñu ngi ciy woo ñëpp rek. ñu ci di wax ni bisub jaayante la waaw mhm. ah, xam ni sunu borom moom lépp loo ko defal ci lu feeñ ak ci lu nëbb guddeeg bëccëg mhm. maanaam du la ko fayee lu dul lu yi mhm. waxe waaw waaw maanaam kon nag ñu ci woo ñëpp rek tey ñaan sunu borom àgg lañ ci jàmm balaa boobu tam dinañ dugg ci kër yëpp maanaam communication bi dañoo bëgg mu àgg fépp dinañ dugg ci kër yëpp leeralal leen liggéey bi dinañ def tam ay caravane mobile yoo xam ni fépp foo xam ni nit dina fa daje dinañ fa dem leeral fa liggéey bi ngir barkeel yi nga xam ne day tàmbali laata bis a mu gën a gën a jàppandi nañ def ay carte barkeelu mm-hmm. nañ fépp lépp fépp fu ñu ko war a yëgle daal dinañ ko dinañ ko fa yëgle ñu ngi ciy woo ñëpp mm-hmm. bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw mm-hmm. te ñaan suñu borom defal ñu ci tawféex te boole ñu yiw wi ñu ñëpp bi jaay rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bàkke borom tubaa ñu ngi woon fii tey ci immeuble Diez ci kër sunu maam alhaaji Thione Seck comme ni ngeen ko xamee ci biir daara wala daayira ak daara xuyurul muharram nga xam ne Cheikh Saliou Mbacké jàmbaar ja moo leen joxoon tur wi ca 1999 ñuy dox ba atum 2023 Serigne Bassirou Abdou Khadre ci ndigalu Serigne Mountakha jox leen pakk bu mag ca jannatu maxwa ñu fas yéene ko def daara fas yéene ko def internat fas yéene fa def jàkk waaye nag fas yéene tamit di wax Sénégal yëpp wala jullit yëpp ñu def ci seen alal am na bëccëg boo xam ne ñu ngi ko tuddee bëccëg collecte de fonds incha allahu taala samedi la le 6 janvier fii ci buntu daara ji ñu ngi ci woo Sénégalais yëpp dégg ngeen ni ko seriñ Alsane waxee waaye dégg ngeen tamit asaala bi nga xam ne moom la daara ji jur muy lan fi mu jaar ba tey sosu lii Serigne Mbacké Diouf ñëwal ñu ci kon ñu ngi leen doon toppal seen télévision DK TV ci seen émission asaala spéciale daayira daara Xuyóorul Muharram fii ci Gueule Tapée kon ñu ngi leen di jox dig daje samedi incha allahu taala le 6 janvier la fii ci buntu kër gi lu waay am lu waay man rek dimbale leen ko ndax yàlla rek moo tax ñuy liggéey liggéey yonent bi rek moo tax ñuy liggéey waaye sëriñ bi rek la ñuy liggéeyal ci ndigalu sëriñ Muntaxa jaar ci sëriñ Basiru Abdou Xaadir kon wa sallallahu ala rasul wa ala ali rasul salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu